laaj naa ko ne sëñ Béthio Soxna Aida nu demee yow xam nga lan la ma wax dafa ne ma mooy sama mooy sama doole mooy sama xol <laughs> attends yàlla si addis lan la wax dani xalbul muumini arshullah le cœur du croyant et la wax nee na xolub jaam bi nga xam ne man yàlla maa ko gëmloo sama bopp nee na man yàlla mooy sama gongu nay nee na ci lay jaayoo kon yàlla ci xolub doomu aadama ci lay jaayoo waaw kon tey jii mën nañ ni soxna Aida ci xolub sëñ Béthio ci xolub soxna Aida lay jaayoo parce que mooy principe looloo tax nag xol boobu am non seulement kattan jëf lu mel nii dégg nga waaye tamit mën koo joxe ndax Serigne Touba naari dañ ko laaj ne ko lan mooy xuluqul laahil hasim lan mooy jikko yàlla ju gën a màgg ju gën a tedd xam nga suñu tubaab lan la wax na mooy am ba pare di joxe tey réew mi am nañu am milliard waaye duñ def li soxna Ayda du denc ay milliard lu ñëw mu dem te ñun ci loolu lañ la yar ñun li gën a am solo ci ñun ce ne sont pas nos banque la meilleure banque humainement et relationnelle mooy jikko ji rafet di ngay won nii teraanga ji ngay seq ak ñoom c'est ça la meilleure banque sachant que nag yàlla moom dafa weesu banque ay li mu lay teralee mën na laa teralee lu weesu doomu aadama moo tax alalu Serigne Touba dëgg mooy taalib nit ñi alalu Serigne Touba mooy nit ñi Serigne Touba dimbali doomu adama moo tax mu wàcc suuf moo tax mu laal suuf mbirum sëñ Béthio nag dans le cadre purement authentique nga xam mbirum l'islam la di mbirum yoonu murit di loolu fu mu la mu wóor ba wóor ba wóor te sëñ Béthio waxal ko boppam ci man ngeen ko njëkk a dégg loolu mi ngi ci soxna Aïda Sall foofu lay doxee